dañ koy faral di wax naan jihaad jeex na léegi jihaatu nag du nemee jël jaasi ki not bakkanam koo koy ñemee jël deretam joxe ko te yàlla tax jihaadu nafs mu li muy njëkk def ci yow mooy day dindi ci yow ragal lu dul yàlla dootoo ko ragal léegi danoo dama lay jox exemple non waaw non may ma may ma tuuti wax bañ koy déggee wi déggin wi wax sa bopp jihaad ju mag gi sa bakkan Euh, ba nga xam ne ñu xew mi ngi mel ni baat laa yukallifullaahu nafsan illaa wusahaa ku baax ki tekkee ko hmm. tey rek benn waay mi ngi koy daal ne yàlla tegul kenn lu mu moon mën a ko mën a ko hmm. côté bi nga hmm. kon yàlla lu mu la teg rek waaw léegi maam ni ñu koy déggee moo baax léegi léegi léegi da ngay dégg euh, kii ci wéykat yi gën a yomb ci sénégalais yi day tagg yonent bi naan xare na badar xare na yama ama am na wéykat bu neex la bu koy woy Eh, yamaama mooy fu ñu reyee euh, kii Musaylima waaw léegi xare boobu yonent bi fekkee wu ko. Hmm. waaw yamaama boobu fekk na yonent bi génn àddina ba pare. Hmm. loolu ci jamono Seydina Aboubacar la. te yonent bi moo waxoon jihaatu nafs moo fi des. gis nga maanaam c'est-à-dire que maanaam xare xare c'est-à-dire que c'est-à-dire que ah, non non c'est ça ça waaw la bataille bu xamante ni sax moonu ab yi bataille bu siiw la muy la bataille dal xadasiya waaw lé waaw non dama ni dama dama dama ni mhm. El Hadj Omar Fouti lan la doon def mhm. Mamadou Lamine Dramé lan la doon def Maba Diakhou Ba lan la doon def mhm. Thierno Souleymane Ba lan la doon def dégg nga Abdoulaye Ben Yacine lan la doon def c'est-à-dire loolu moo taxawul amul benn téere fiq booy dem téere fiq di pour rek mu mu simple quoi amul benn téere fiq booy dem loolu da nga fa tudd fekk baabul jihaad bunt boo xam ne jihaad rek lay jàngale ak maganim ak butin yi ñuy gagné ci ci guerre jihaad yi nan lañ koy séddalee donc donc donc jihaatu nafsi ça ne veut pas dire que ne doo bu ko laajee doo joxe sa bakkan wala doo jóg résister abadan yàlla boo résister wul da lay jéppi yàlla dafa teral doomu aadama doomu aadama bu ñu la naree toroxal xotti sa wor ma jëmm xotti sa wor ma réew xañ la sa liberté jaayal sa bakkan boobaa soo si dee da ngaa martyr d'accord d'accord jërëjëf imam leer na euh, bëggoon naa nag ñu def benn commentaire bu bu ndaw euh, par rapport ak euh, benn déclaration bu xalifa Babacar Sall ne lu ñu mënti wax daal dialogue am na am na kum doon kum doon joxañ na xel yëpp dem ci ci Sonko est-ce que yéen noonu ngeen ko ngeen ngeen ko euh, jàppee. Euh, nga baal ma ba ah, kii xam nga euh, gis nga kilifa. Mm-hmm. njabootam buñ ko wóoloo rek mission bi day yomb. Mm-hmm. professeur mu ngi koy junj jalo mënul ñàkk ci diine mënul ñàkk ci réew mais kii dialogué kan la ñan ñoo ko yebal ak ban kóolute la nit ñi am ci kii gis nga man fi ñu toll gis nga euh, gis nga sonk wallahi jàpp naa ne sénégalais yi fii gëm nañ ko gëm goo xam ne wóolu nañ ko wóolu goo xam ne bu ne woon damay dem waxtaan ak Macky Sall yéen toog leen xaar ma sénégalais yëpp dañuy toog xaar ko parce que wóolu nañ ko mosu leen a wor mosu leen a trahir léegi loolu Sonko am nag ñeneen ñi amuñu ko parce que ñeneen ñi dañ leen di xool ne yéen dialogue leen da ngeen di diil parce que sonk tey buy wax ak Macky sénégal sénégalais dañuy gëm ne du intérêt boppam mais intérêt réew mi la du fa dem naan naa bokk rek mais danaan mayal jàmm sénégal yi beneen bi sonk ba muy bañ di jaloge ji boobu waa ji mu ngi toll ci dooleem ñàkkagul pouvoir yi mu ngi am doole jum la mën a fitnaale tey bu ñu naan Sonko dialogue naag dialogue daa dem ba waa ji yoratul dara donc foofu dialogue amul Sonko lim parce que tey sénégalais yi fii ñu toll guute gii ñu waaju dugal nan lañ ciy génne loolu mooy wax ji mais du ay dil yooyu noonu donc am na wax yoo xam ne dafa mel ni daal boo ko déglu ñoom daal dañu yéene woon Sonko toog ci kaso bi <laughs> dégg nga man dama jàpp ne xale yiy génn tey bu doon seen doom ñoom dañuy dóor ay pooj waaye taxaw naan fii la xar yi jaar janax yi jaar fii loolu vraiment rafetul mhm. euh, professeur non non c'est euh, je pense que voilà c'est waxtaan ma mënta ñàkk seconde guerre mondiale moo gënoon métti seconde guerre mondiale laa wax de en temps de guerre généraux allemands yi. Hmm. xam nga fii sax nit ñi demee ba tàng ba tàng dañu naan euh, allemand. Hmm. les généraux allemands discutaient avec les généraux anglais ak américain pendant la seconde guerre mondiale dañu doon waxtaan ku su mel ne ay Rommel ak ñoom Mongo Mary ainsi de suite dañu doon waxtaan seen biir di dialogue en temps de guerre donc dialogue wax ma la euh, c'est une euh, nécessité mais dafa doon loo xamante sax c'est indispensable dans la vie politique du Sénégal nag aussi ñun dañu yàgg tradition dialogue mm-hmm. ba fu ñu toll fii sax dialogue moo ñu fi indi indépendance Sénégal sax si kaw dialogue la amee mm-hmm. indépendance Sénégal diñu naan c'est le 4 avril mais c'est que la ñu Euh, euh, traité fédération bi mais suñu indépendance dëgg-dëgg bi ki ñoom señor moom moom sax d'ailleurs la ñuy woowee le premier coup d'état bi amoon Sénégal coup d'état boobu ñu ko defee le 20 août donc normalement euh, jour indépendance bi 20 août la ñu ko waroon def fii Sénégal mais yooyu yëpp si ay jarug la mujj ba ñu bàyyi Modibo dem bon du mu dugg si histoire bi pour gagner du temps Dia ak Senghor créer Sénégal bi de façon séparée 62 bi ñu jàppee moom Mamadou Dia ba coow li demoon ba ne cour si dialogue la mujj pratiquement Eh, Senghor sax d'ailleurs booy xool ba ci biir moo tax terme coup d'état dañu naan coup d'état musul am Sénégal mais Senghor a toujours utilisé le mot l'expression coup d'état 62 Senghor musul wax leneen coup d'état lay wax donc coup d'état boobu sax nga xamante ni c'était institutionnel pratiquement ci dialogue la mujj euh, bi mu demee aussi ba tàng gis nga taxawaay bi général général Alfred maa ngi ko doon wax fii je pense que rek Alfred Diallo. taxaw bind leer euh, wax ak Senghor lu leer. nee bu affaire demee ba tàng on va pas tirer la population. donc ñu amoon taxawaay vraiment bu mat sëkk dafit nag dialogue bi avec qui faire ce dialogue. man xawoon naa sax mere quelque part des religieux mais su ma dégloo imam vraiment li ma xawoon jàpp ko mer day giif ndax dégg naa tey mu wax religieux yi lu bëri ndax religieux yi dañuy dañu fondamental ci dëkk. Mhm. bu seen discours nekk xawee rax tuuti caaxaan rek loolu day jur lu bon ci boo gisee France ñu yàlla mooy seen religieux yi ñoo leen wor. Napoléon bu mu fay nekk ak seen buur yi ak ñoo ñëpp ci église bi lañ doon jaar pour not askan bi pour leen toroxal ak yooyu moo tax ba léegi sax euh, franc-maçon yi bu ñu jëlee euh, créé créé mm, république bi <coughs> si la ñu bedde si la ñu créé sax laïcité bu ñuy wax séparation entre l'église et l'état mais politique ak diine ñoo ànd man loolu a gëm politique ak diine amul je pense que ñoo ànd donc voilà voilà donc dialogue euh, mënta ñàkk 62 68 bi nga xamante affaire yi gënoon a tar 93 bu ñu rey Maître Sèye donc dialogue c' est vraiment fondamental sauf que nag dialogue bi nañu yóbbu ay kilifa yu ko yu ko mate religieux yi aussi moo tax vraiment li saa wax maa ngi ànd ak jàngu bi vraiment si taxawaay bu boo xamante ni def nañ ko les religieux musulmans voilà hein voilà donc euh, dañu am vraiment euh, taxawaay boo xamante ni mën nañu fa yóbbu ay kilifa yoo xamante ni duñ def politique tey boo ma sitalee yenn yenn nitu diine yi ñëpp xam nañu même politique sax dafa xaraamul déjà <laughs> man loolu laa gëm. mais am nañ taxawaay boo xamante daal c'est neutre. dégg nga ñu am sens des responsabilités donc dialogue bi mënta ñàkk c'est indispensable. très bien euh, sëñ Bara euh, Khalifa mel ni kuy euh, joxoñ baaraam sa leader bon je vais pas dire sa leader sa collaborateur sa sa partenaire politique dialogue boobu jaakaar nga ne lu mën a nekk. man <coughs> en fait. mais bañ ñuy sori si ay ay conjecture quoi. Mm-hmm. waxoon naa ko léegi. Mm-hmm. conjecture mooy bëgg a dugg si ay ay dialogue ak wooy kilifa ak ñu ñu wóolu. Mm. loolu amu fi place jamono ji ndax li wóor ba wóor mooy lan conseil constitutionnel dafa rendre décision. Mm-hmm. donc tey jii fañ nekkoon le 20 janvier fa lañ dellu Sonko du candidat Diomaye mooy candidat. moom lañ fas yéenee wax moom lañ fas yéenee fal. loolu moo fi nekk amul leneen. Hmm. amul leneen. <coughs> Euh, moo tax lépp solo mooy ñun waa coalition Diomaye ñun de ñi ngi campagne. Hmm. waa dëgg yàlla ñi ngi campagne ñoo ngi ñaax gaa yi ñu jëli carte yi ñoo ngi dénoncé sax préfet yi nga xam ne dañoo arrêté joxe carte yi. bu hmm. dikk ñun. Ah. kenn gënu ñoo nekk ci logique gu dem élection. léegi nag ñun duñ bàyyi li nga xam ne mooy factuel di dem ci la leneen. xale yi ñu génn daal wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee rek ku ne ku nekk ñu ngi ñu ngi sant ci génn gi ngénd ndax jaadul woon tax ñu téye leen. donc li ñuy focus mooy lan fañ yemoon te fi Sénégal recommencé muy dem élection. moo tax pour man amul déroute perte temps ci ci ay conjectures. ça marche saa wolof du ma la toot du ma la laaj question ci mbir moom parce que da nga nar a guddal te minuit léegi mu jot.